sëñ Amsatu ñëw na àndandoo ak njabootu sëñ Ibra Xujja sëñ Mam a nga ne moom sëñ Ibra Xujja ñu ñëw teewal fi xalifa bi fekk si fi nag ñi nga xam ne ñoo nekkal sëriñ Mandumbe fii ci Ndakaaru suñ ci ci tuddee sëriñ Taala Mbàkke moom sëriñ Abibu moom sëriñ Mandumbe nga xam ne tey waajuram moom mooy caatum sëriñ Mandumbe mi ngi nii toog waaye mi ngi fegoo ak sëriñ Mamor Mbàkke moom sëriñ Abibu moom sëriñ ma Manumbe ñetti yoon yi ma traversé fii yëpp kenn ku ne ci sët ñëw nga dugal ci sama noppi ne santal ñu sëriñ Mamor Mbàkke ci taxawaayam ci sunu liggéey bi sëñ Modou Xari mii moom sëriñ mamoor Dendey nga xam ne mooy jëwriñu kër sëñ Mamor Dendey léegi bi muy bind ci délégation bi dafa bind sëriñ Mamor Mbàkke jëwriñu sëriñ Mandumbe ci Ndakaaru te loolu damay wax ne bu sëñ mu numbe di jaay moom daa jël alalam taxaw jënd télévision yii média yii fu ngeen fi gis ñuy waxtaane sëñ mu numbe ñaqam du ko fekke jotam du ko fekke bis bii bañ ko ko yëgalee la wax ne lépp lu jëm ci communication maay génn sama alal def ko bi ko sëriñ bi joxee ndigal la dajale taalibe yi nekk ndakaaru ak setti sëñ Mandumbe yëpp àndandoo ak ñoom ñëw kon sëriñ Mamor njabootu seex Cheikh Issa Diène gépp nee nañ gërëm nañu mi ngi fegoo ak sëriñ Modou Khary Mbacké mi nga xam ne ci kanam tuuti moo war a jël kaddu ci turu xalifa bi moom Serigne Mamor Dendey ñu di ko ziyaare bu baax di am mbégte ci seen teewaay ci jataay bi mi ngi fegoo ak sëriñ Cheikh Badar Mbacke ak Serigne Ahmadou Mbacke mi nga xam ne ñoo di ca délégation Serigne Bintu ak ak faat sët yi nga xam ne ni ñooy soppee Cheikh Ahmadou Ndoumbé Xabaan yi Serigne Xabaan Mbacke moo jiite délégation Serigne Ndam Mbacke xalifa Serigne Cheikhouna Tawa Serigne Cheikh Mandoumbe Mbacke délégation Serigne. xabbaan xalifa sëñ Abdul Xaadir sëriñ Saaliwu Mbakke xalifa sëriñ Abdourahman njataay bii daf cee bég lool ba mbégte mi mu ci am tax na mu yóbbante ci ay kàddu waaye sëriñ Moustapha Mbakke moom sëriñ Abibu moom sëriñ Manumbe mi nga xam ne moo yore kàddug njabootu sëñ Abibu gépp mi ngi nii feggoo ak sëriñ Modou Mbakke Dendey moom sëriñ Mamor Dendey waaye feggoo ak sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Abibu moom sëriñ ma Mandumbe waaye fegoo ak sëriñ Ousmane Mbacke moom sëriñ Mamor Dendey bi nga xam ne gis ngeen ko léegi ci écran yi mu feeñ ci wax ci wax xam-xam bu rafet boo xam ne ku ne xam na ne ak faat yëpp jiital nañ ko ci waxtaane Cheikh Ahmadou Ndumbe teg ci sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abibu moom sëriñ Mandumbe waaye buñ ci toftalee nag sëriñ Abdou Samane Mbacke. moom Serigne Mouhamadou lemin Baara moom Cheikh Mouhamadou Fadal moom Serigne Touba mu bokk ci délégation bi léegi bi muy ñëw moo Serigne Abo Mbacke moom Serigne Fallou Asta dañoo wax na ci délégation Serigne Mandoumbe bi ñoom ci la bokk kon Mbacke noo ngi leen di sant bu baax sunu Serigne sunu xarit ñëw léegi te xam naa ne ci délégation bi la bokk ndax xam naa digganteem ak njabootu Serigne Mandoumbe muy Serigne naa Mbacke Ridis ñu di ko nuyu bu baax a baax moom di ko dalal waaye Serigne Makhtar Diène bokk ci njabootu maam Cheikh Issa Diène su ñëwee fekk si fii njabootu Cheikh Amadou Ndoumbé li ma leer ba leer ma mooy bu kayit wii bañ koy bind day wax ne nañ ko bind ci délégation Cheikh Amadou Ndoumbé waaye mu feggoo ak soxna Soda Mbakke mi nga xam ne tey njabootu sëñ ma Ndoumbé gi fi teew ci soxna yi moom mooy seen xalifa ñu di ko ziyaare bu baax mu feggoo ak soxna Mbenn Mbakke moom sëriñ Abibu moom sëñ ma Ndoumbé feggoo ak soxna Rama moom sëriñ Abibu moom sëñ ma Ndoumbé feggoo ak soxna Kumba moom sëriñ Abibu moom sëñ ma Ndoumbé ak jëwriñ yi nga xam ne ni ñoo nekk ci ginnaaw sëriñ Mamor muy soxna Ayda Ndiaye ak soxna Kumba Saaxo ak madame Mbacke bu ñu leen ziyaare day mel ni dugal nañ ci ñëpp ndax sëñ Mamor bi liy xewee dafa ne njabootu sëñ Munu bi gi man ngeen di daloo ci man ngeen di jógee dem tax mu dajale ndakaaru gépp ñëpp àndandoo ñëw léegi la ma sëñ Mamor déndee yi déy lu sëñ Modou Xari déy lu lu kéemaane ne ma ñun danoo bëgg téeméeri junni yi sëñ Munu daan joxe weeru ne di ko joxe ci liggéeyu jumaa ji dama danoo bëgg nun ñii ñun njaboot sëñ Mandumbe waa kër Cheikh isaa xam ne lii lii ngeen ñu dox yëg nañ ko yëg goo xam ne ni fas na noo jëflanteeg ñoom teraanga te léegi ci kanam moom dana ci ñëw incha allah ndax barki démb bi ñuy def jataay ci maam Cheikh Issa Diène ñoom dañoo wax ne lépp lu ñu wax ci seex Issa lépp lu ñu wax ci njabootu seex Issa ñoom lañ ko waxal ndax mbég gi nga xam ne bégg nañ ko ci jataay bii kon nag noo ngi leen di sant bu baax délégation boobu ànd na noog Serigne Khadim Kebe muy jànkatu xasaayit bu mag ak Serigne Cheikh Ngunda Gueye sëriñ yàgg a ngi nii sëriñ Moustapha xam sa diine nga xam ne sëriñ naa Njaay borom jaaro bi ñoom ñëpp ci délégation sëriñ Mamor Mbakke ci la ñu bokk ànd ak sëriñ Sam ak sëriñ Taala ak sëriñ Mamor ñëw ci bis bi kon njabootu Cheikh Issa gi itam wëlbatiku nañ ñama nag nu santal njabootu sëñ Mandumbe gii ndax nun mbégte la ñu am bis bii 2021 lañ ko waroon a def waaye ku ne xam na mbas mi moo tënk ñëpp ba tax ñu bàyyi ko ba 2022 ñu wootewaat ko. waaye fu ñuy wootee journée maam Cheikh Issa Diène ku di murit am nga récompense boo war a fay Cheikh Issa ndax sëñ Tuubaa mbég mi mu am ci jumaa njaareem ji liggéeyu Cheikh Issa Diène ak pasam ak pas-pasam rek ko ko waral kon nag njaboot sëñ Mandumbe gépp nu ngi leen di sant kon dañuy bàyyee kàddu gi sëñ Ousmane balaa sëñ Ousmane a jël ndax sëñ Modou Khari dana ñëw ci lu yaatu ci li nga xam ne ni mooy kàddu yi sëriñ Ibra Khoudia yónnee ak li nga xam ne ni moo jëm ci li ñu war a jëflante ci kàddu yi teraanga balaa boobu sëriñ xaadim kebe dana wax ay abyaat ay bayit ci Cheikh Ahmadou Ndoumbé sëriñ Modou Khary Mbacké moom sëriñ Mamor Dendey mu yëkkati ay kàddu su ko defee bu noppee ñu dalal sëñ Ousmane euh, ci lu tënku bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman bokki jullit yi noo ngi leen di nuyu di yëkkati suñu kàddu ci turu Serigne Talla Mbacke mii fi nekk di kilifa jotaay bi ci njabootu Cheikh Mandoumbe ci turu Serigne Amsatu Mbacke muy kàddu gu bàyyikoo ci sëriñ Ibrahima Mbakke xalifa Cheikh Ahmadou Ndumbe Xabbaan ñu jël kàddu yi nuyoo bi gu ànd ak cant ak ngërëm di ko teg ci loxol sëriñ Cheikh Jenn mi jiite liggéey bi di ko teg ci loxol sëriñ soxay bu jenn mii yor kàddu kër gi waaye di ko jaarale ci ëttub sëriñ siidi naar jenn mii xalifa sëriñ naar jenn nga xam ni ci yàgg goo xam ni yaari kër yi yàgg na ko na tey lenn ci njabootam ñëw dende ci sëriñ Mamour dende yi doon fa liggéeyal yàlla waaye di teg ziyaar bi ak cant gi ak ngërëm li di ko jaarale ci ëttub sëriñ Soxaay bu jenn xalifa sëriñ Baara jenn mu egg ci kilifa gu mag gi di boroom kër gi di sëriñ Abdou Latif Diène mii Cheikh Issa ci kaw suuf di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba yéene yi am ci keppaaru Cheikh Issa mu mottali ko ànd ko taalibe yi di ko ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mii sëriñ Tubaa ci kaw suuf ak mboolem kilifa diine yépp sëriñ Ibrahima nee na yéen waa Njende jëf ju ngeen mës a jëf ci ëttu kër sëriñ Touba jëf jii mooy ji ci gën a sedd xolom ndax da ngeen a fekkoon lu ñu nasoon démb fas ko ngeen ñëw dëgëral ko feddli ko Cheikh Isaac Cheikh Mandumbe yaari jamono képp laay nettali ci ñoom jox kàddu gu Sëriñ tey kum neex ci salle bi mën nga poser benn question muy ñoom ñaar lu leen boole lan moo leen boole Cheikh Issa Dieng ak Cheikh Mandoumbe lenn képp moo leen boole woon mooy pas-pas bokk luñ bëgg bokk fuñ jëm bokk nuñ koy wute bokk ak dogu moo tax ci ñaari jamono képp lay nettali ci ñoom ndax lii ngeen def muy jël bis bu réyee nii di bésu kër Cheikh Issa gépp ngeen jagleel ko Cheikh Ahmad Ndumbe xaban mën ngeen a xam dayob saahir bi waaye dayob baatin bi mun leen koo xam ndax démb la woon pas-pas bu njëkk bi mooy sëriñ bi dafa nekk ca géej gi di liggéeyal boroomam moom Seexul Xadim yittewoo gum yittewoo yàlla ak wéetal ko te teg ko ci sunna mu xëy bis wut ay bantam rangale ko jàppe ko jumaa ci xolom ak ci yéeneem tubaab bi ñëw tasaare bant ya ni ko fii jàkk xewu fi jibril ñëw ci moom ni ko sa jàkk ji ñu tasaare na sa xol sedd yàlla may na la ñaari néeg ñaari jumaa fa sa pàkk bu tedd ba waxtu woo delloo loolu dekkara la bu suñ boroom jël laata muy am moo tax sëñ Fallou dana wax naan jumaa ji bu ko nit ñi defaru tonit ay jinne danañu wàcc defar ko bi mu ñëwee njaareem benn jumaa ji waxtu wa jot mu woo Seex Isaa jiital ko ci liggéey bi ne ko liggéey baa ngi noonu Cheikh Mandumbe dafa ñëw ba ci Seex Isaa ni ko Cheikh Isaa mu ne ko Mbakke mu ne ko sóobal ma dëbbale la ndax dog bii la ku baax ki jox dog la bu mokk laata muy dugg ci gënn gi lu yàlla sottal la démb fas naa yéene li fii liggéey bi yegg fa saasa dafa yëkkati téeméeri junni jox ko ne ko maa ko tàmbalee ci liggéey bi waaye li fii néegu yàlla bi yegg man Ahmadou Ndumbe danaa la jox téeméeri junni at mu jot mag ñi ne ko xanaa kon sa hadiya da koy wàcce ba beneen yoon ba jumaa ji yegg mu ni du yàq dara ci sama hàddiya moo tax mu ni téeméeri junni la sasoo te mës lay yàq lam fasoo foofe nag fala Cheikh Isaa xam ni ndax li ko gënoon a ñor gën koo yitteel mooy néegu yàlla bi taxaw ndax sëriñ bi sas na ko teg na ko ci kanam Cheikh Mandumba wetti li ko ci dalal ci xelam jàppale ko ci ci saayir ci baatin foofee la ne ko ahmadu ndumbe mu ne ko mbakke mu ne ko sama digg yow ba aljanna foofu la feddilee koo la bu ñu demee ba deux mille vingt deux waa kër Cheikh Issa Diène jël bis tudd ko Cheikh ma ndumbe la xewante buqaxatul mubaaraka moom lañuy yee salaat beneen pas-pas bi nee naa sànq dañoo bokkoon ay pas-pas beneen boobu laay jeexale dafa am naar bu nekkoon gànnaar di def commerce nekkoon nit gëstukat di faral di gëstu ni sama yitt daal bokk na ci mooy ma xam ci kaw suuf kan mooy mujaddid bi ci kaw suuf kan mooy xutbu samaan kan mooy xawsul waraa kan mooy ki doon yónnente bi alayhi salaatu wasalaam ci kaw suuf waa ju baax juñ ko wax mu gëstu ko lëjbal ko xam ne du kooka mujj mu toog jàpp ci yàlla jamonoy dox bokku baax ki dem gànnaar dend ak moom bis ñëw suñ borom bëgg na koo dimbale wan ko kii xut bu samaan ñu xëy bis sëriñ bi njël li jeex ci kër gi ndaw li ñëw ci sëriñ Touba ni ko dafa mel ni day njëlul kër gi jeex na ñu la ko doon yëgal si sëriñ Touba ne ko demal ci naar bi ci buntu kër gi boo demee nga ne ko nanu abal foofu lu tollook ñetti njël ba yàlla ñëw taalibeb sëriñ Touba bi ñëw ci naar bi ne ko ku baax ki moo ma yónni nee na dafa soxla woon ñetti njël ba yàlla ñëw naar bi ne ko man lépp léwu damay jaay lépp léewuma mayewuma damay jaay ku andi ñag ma jaay la ndaw li ñuy wax ko ku tedd ki sëriñ bi ni yàlla baax na ñu toog ba yoor yoor bu tàng jër Cheikh Ibra Fall yónnee gànnaar ñetti gëléem yu sëf ba mu fees ndaw li ñëw ci ku tedd ki ne ko addiyee Cheikh Ibra Fall da yegg na sànq jóge senegaal sëriñ Touba nañ ci génn ñetti njël lu des nañ ko yët naar ba moom mi yefal àdduna ñu génn ci ñetti njël la des lépp ñu dem jox ko naar ba ni ko ku baax ki dem moo la jox loolu nee na nga barkeeloo ko naar bi sëgg capp cappal bant jël ñetti gëléem moom ne xiim toog ñu toog ba digg bëccëg naaj wu tàng ñu seen ñetti gëléem yu rungu di ñëw booba Cheikh Issa Dieng moo yónnee yetti gëléemam ñu ñëw ci moom ne ko Cheikh Issa Dieng yónnee na addiyaam yetti gëléem Yusuf ba mu fees sëriñ bi ni nañ ci génn ñetti njël lu des nañ ko yëtt naar ba moom mi yefal àdduna ñu génn ci ñetti njël la des lépp ñu yët naar ba naar ba jël ne xiim toog di càpp cappali bant ñu toog ba waxtu timis li ma ci yéem saa yu may nettali histoire bi ci waxtu seex Cheikh Mandoumbe yónnee woon rek te lay fekk ci lay jël kàddu timis ji waaja jot yetti giléem ñëw Cheikh Mandoumbe xabaan yónnee ko ko mu yetti gileem yu sëf ba mu fees ñu ñëw ci sëriñ bi ni ko Cheikh Ahmad Ndumbe xabaan yónnee na addiyaam yetti gëléem yu sëf ba mu fees sëriñ Tuubaa ne nañ ci génn ñetti njël lu des nañ ko yët naar ba moom mi yafalaat duna ñu jox naar bi naar bi nag tëj boutique bi juróom-ñeenti gëléem nga jox ko koo xam ne ca yoor yoor da laa leboon nga gàntu naar bi rangoo ñi sotti ko mu ni xaarleen ma du ngeen ma fi ba tëj boutique bi ànd ak ndaw li ni naa dem gis jëmm ji leen yónni woon te yónnee ma lii ñëw ba jub sëriñ bi sukk ay bëtam di raam ñëw ba egsi ni ko diir bu yàgg a ngi nii ma doon wër kan mooy ki doon Moustapha sallallahu alayhi wa sallam gëm naa ne si jëmm ju tedd nii la jébbal naa la sama bopp àddina ak àllaaxira lu ma am yaa ko moom mbokk yi kuy may ku la xañ du fàtte mukk ku ko lebal Sëriñ Tuubaa ñi muwul bor dafa am pay te lëm sédd Cheikh Mëndu Mbeek ak Cheikh Modou xa ak Cheikh Issa Dieng loola day dañuy ñaan rek ci barkeb